Faye mu nek le président de la République du Sénégal mom ki nga xam que moo Bassirou nak def na benn ko descente fa nga xam ne itam mooy ko Mourkat ki nga xam que moo Bassirou ñewat na seen ci ay ponk ki nga xam ne itam doon nañ ko daal di juste après euh, cette annonce qui fait suite euh, à une interdiction si li nga xam que moo construction euh, surtout le littoral ki nga xam que moo Bassirou jomay jax Faye na digganteeg corniche japp li nga xam rek moo di Tivaouane Peulh lépp la daal di tere ñu daal di fay tabax. Moussa euh, mi ngi si euh, li nga xam nekk moo région yi waaye tam si gox yu ko gëna fassantiku mi ngi won fa nga xamni ni itam mooy zaanu ko muurkat mu defee def li nga xam nekk descente niki le 1er mai 2024 euh, vu que une semaine au Sénégal li fi xewoon semaine yëpp leen leen dal di tracel ki nga xam modi Bassirou mi fa doon souligner ay irrégularités allant dans sens am ñoo xam dañi am plus de 50 hectares ñi 75 ni ñi hectares am na sax ñoo xamni tam dañi am plus de 200 hectares mu daal di jàpp nag lu mel du et que mu nekkoon ben descente bo xamni tam c'était une descente surprise euh, fa nga xam ni itam di euh, euh, justement Mourkat mu daal di dénoncer lu mel dal di ni il est temps que mu dak di dakk mu leen fàttali ànd nag ki na xam rek moo di Diop nek maire de Thiès waaye tam maire de la ville ba di ki na xam que modi justement docteur Babacar bi nga xam ni itam les FDS Guelwaar Les léegi ñu dal ñëwaat si les gros gros angle yi nga xam ni itam Bassirou euh, suñu ne na ko fa xam ni itam mooy zànn ko murkat avec euh, justement suñu ay nattaango yu la RTS. de bu ñu la woonee répartition bi dañu ne la daanaka jege na mille hectares maanaam ñetti junni hectares nga xam ne ñu bare bare bare bare am jafe-jafe dëkkuwaay ci biir Thiès ak yenn parti yenn fi jege Thiès waroon nañ faa mën a dëkk ak yu bëri yoo xamante ne mën nañ ko def waroon war nañ ko def ci biir réew mi te am problème mu suuf gis ngeen ne bu ñu xoolee ni ñu seddalee mbir mi ñi fi nekkoon jiite ànd ceeg ak ñenn ñoo xamante ne borom alal lañu ñoo ko pàccu ñii jël ay 10 hectares ñii jël 1 hectare ñii jël 3 hectares ñii jël 5 hectares ñii jël 30 hectares ñii jël 50 hectares kenn koo xamante ne am na lu ëpp 200 hectares ci kenn benn doomu aadama te dara mayu ko ko lu dul dafa jege nguur kese. au même moment ñu jël daanaka 3 hectares la ville de ville de Thiès manam 3 hectares moy 120 parcelles yo xamantene mom la ville de Thiès joxe ay citoyens nga xol ci wet ñuy jox ay nit 100 100 hectares 200 hectares 300 hectares wala 10 hectares sax wala sax benn hectare wala sax 40 parcelles pour kenn ko xamantene ne xam na ne moom lay waxal ni kon dal ñu sédlu ni amna ay jëfin yo xamanteni ni ci yoon te askan wi ñoo ci loru. loolu nag moo wundu décision bii nga xam ni njiitu réew mi jël na ko. ma bëggoon Sénégalais yi xam ne li tax ñu arrêté li ñuy def ci sites yi nga xamante ne moom la ñu visé te dafa am ay actes rek yu mu concerné c'est pour bañ ñi nga xamante ne niñ ko xamee ñun ñu ngi nekk di gaawantu ci diggante bu ñu leen wàccee ci nguur gi ak bu ñuy dem ñuy gaawantu pour ñu signaler leen ñu am ay baux wala ñu am ay titre foncier pour ne état yaa ma jox. léegi mettre ñu lu ñuy wax devant les faits accomplis maanaam tegal ñu situation boo xamante ne du ñu am nu ñu ko def loolu moo tax ñu arrêté lu ñu arrêté. lu ñu arrêté nag pour xoolaat pour tamit li nga xamante ne digg nañ ko Sénégal yi mooy jubbanti parce que yu mel nii buñ koy def ñu ko def teguñu ko njub jubaluñu moo tax ñu war ko jubbanti. te buñ ko jubbantee du loo xamante ne day delloo day ñëw ci ñi nga xamante ne ñoo yëg ci nguur tey du loolu ñu ma àndal xam nañu ko ñaari junni hectare wala lu ko ëpp ci biir commune Kër Moussa bi ngay jox waa Kër Moussa suuf nga jox leen kese fukk fukk fukk parcelle ak juróom naka lañ koy seddoowee après nga jël ay toolu jàmbur donte loolu boo jàppee ne sax mënta ñàkk mais xalaatal ni waa Kër Moussa dañoo am fu ñu war a dëkk dañu soxla ay aire de récréation dañu am ay aire foo xam te ne ay terrain football la ay stade te municipalité bi jooy na ko ba sonn mënu ko am lii nag moo tax sénégalais yi fal ñu fi te incha allah rabbi dinañ ko doxal ba fu mu yem président de la république Bassirou Diomaye Faye wax ni dinañu càmbar waye tamit delusi si ci lolu nga xamanteni ay jëf la yoo askan wi lay lor té rek mo wundu décision bi nga xamni jël nako ngir dakal lolu nga xamni modi di procédure ak lu jëm ci walu keuyit jëmele ko ci souf muy ñaax service yi nga xamni ño yor ñu ci dogal boobu ba fileeg ñuy leeral lépp. ville de Thiès bu ñu la woonee réparti

si li nga xam nekk moo di àlluk muur bi mu jàpp ni itam lu nu mel faw mu daal di koy takkal euh, fii si li nga xam nekk moo di Sénégal ma fàttali nag Euh, annonce bi euh, suñuy fàttaliku Pierre Goudiaby Atepa moo moko daal defone fa na xam ni it mooy RTS travers émission Le Point mu dal di ñew ramené euh, ki na xam nekk mu toute construction exactement sur le littoral maniko nak ñom ñi ngi nekk si ben logique ni dal di continuer combat bi n'a xam ni itam soobu nañ ko amana ni ko seen ay programme si on se rappelle il y a de cela cinq ans annoncé postman Ousmane Sonko nous y reviendrons par cette vidéo bi na xam ni itam di leen comme ben flashback donc jàpp ni pour le moment euh, ki qui xam ne le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag euh, mi def ay descente yo xamni ni le président ko si gox yu ko gëna a ni daal contrôler exactement sous scan wi xol ma xam mi dal dem si loxo yi nga ni euh, war fa daal di war a mën a demani donc nag constat boobu la def sur place moom sur pam euh, ay descente yoo xam ni itam moom euh, le président Diomaye Diakhar Faye defaat na sur les lieux du crime ànd seek li nga xam que moo di ay autorités yi en tout cas ñiy xaar peut-être askan wi mu nekk une demande sa askan wi ñu daal di révéler ñi nga xam ni itam ñooy dagg plus de 200 hectares ay 100 ba si li nga xam que moo di ay 50 hectares jëmale seen ko li nga xam que moo di moomeel alors.

ki nga xam que mu Doudou Ndoye jàpp na ni ñoom euh, euh, hein, le président Diomaye ak ki nga xam ne que mu Ousmane Sonko duñu ay loi et ils sont euh, euh hein, si hors loi ñuy daal di arrêté loo li nga xam ne que mu lu ñu mel ñu gis aussi société civile bi ñom ñu daal di ah, tàccu encouragé ki nga xam ne que mu Bassirou Diomaye Diakhar Faye et que suñu société civile bi nag dañuy tuddu ñom Aluntine ñom ñoom Birame Seck et consort ñoo ñëpp na daal di àndandoo magnifié décision bi nga xam ne itam Diomaye jël na ñu daal di war a dakkal joxe souci ci li nga xam ne que mu di littoral gi waaye itam

Euh, dix mille euh, si ay euh, personnes ñoo fay liggéey nag lépp leen daal di dakkal fu mu toll ni digganteeg ville jàpp li nga xam ne que moo di Tivaouane Peulh waaye itam digganteeg li nga xam ne que moo di Nord bi tamit kenn amatu fa kenn amatu waa daal di fay tabax fu mu toll nii mu nekk une sortie boo xam ni itam dafa daal di am wàllum polémique allant dans ce sens kenn koo xam ni itam wax na si di ki nga xam ne que moo di Babacar Fall moom itam toute la semaine ñu daal di partager bu baax a baax sa sortie sur la radio Futur Média daal di jàpp.

démolition amagul dara amagul mais tek tekkaaral ak li nga xamné ne que moo dal euh, seetlu ko euh, si construction yi si li nga xamné que euh, littoral bi comme vous le voyez dans ces images pense Sonko peut-être l'aurait averti kep ki nga xamni tam itam fi tabax sa kër amaana ni yang koy yaa ngi sànni sa xaalis ndaxte ñom su ñëwé lepp di ko buddi permettant au Sénégalais lambda ñu daal di war a bénéficier exactement si li nga que moy c'est le littoral alors sans plus tarder ñu dem seetaanaat en mode flashback ki nga xamné ko modi Ousmane Soko euh, et ses fameuses déclarations yi nga xamni tam il y a de cela trois ans. parce que depuis des années euh, fii laay ñëw régulièrement avec ma famille ñëw def sport sport euh, thème tay bi sax c'est la pratique du sport mais bima déké ba fi laa ne bàyyi ma profité ci wax ci mbir ni parce que je suis interpellé de toutes parts ñu ne wax ci mbir wax ci mbir dama non nak duma du ci gaaw wax parce que. Sénégal dafa mel ni dafa am ñaari catégorie de Sénégal dafa am ñoo xam ne nit ñi dañoo jàpp ni ñoo war a yenu xeex bi ñoom rek war a yenu xeex bi ñooy dem ci terrain bi ñooy xuloo ñooy xeex ñooy dem tribunal te ñooñu ab toq la ci biir Sénégal mu am nag la grande majorité de ceux qui sont concernés te xepp ngeen xamul ñaata la ñu toll mais d'habitude day mel ni ñoom seen yoon newul ci mbir mi wala ci salon yi la ñuy toog di ko wax kii du xexu Barthélemy Diaz je le félicite au passage mon frère Barthélemy du xexu Guy Marie Sagna je le félicite du xexu Passef waaye xexu sénégalais yépp la dafa am lo xamné xel mënu ko barka ci dem dafa am ben kilifa bu ma woo ñu ngi dëkk fële ci gannaaw euh, boru Mermoz mune ma mbir mi da ngeen ci wara wax parce que ñun biñ fi dëkk jamono sengor la woon waaye ñemewuñu won tabax yenn tabax yi parce que jamono joj dañ ko interdire won ta mo nañ moyen

loolu nag mooy problème mu Sénégal nañ ko waxante ne nit ñi xam lan mooy priorité fii nag suñu plage ñun dañ fa yàgg di entraînement yàgg naa fi di ñëw ànd ak famille bi yëpp samay doom nit ngeen ñi ñëpp famille bi la les garçons ñu ngi nii ñëpp ba ci ma princesse Fatima ak euh, le gardien de la maison Blacky ñun dañ fay yàgg di ñëw suñu ñëwee fii la ñuy footballé def fi suñuy sport

escalier bi nga xamné sax 200000 mom lañ fi def euh, euh, euh, les utilisateurs de la plage pour leur dire que maintenant le problème est réglé. lima waxé ci may door sama problème ben problème sénégalais sénégalais mu arrêté tay dina arrêté ci wax conclure nous concernons. Nous nous sommes ici. nous leur lance un message. Nous avons fait faire des milliards. Parce que nous devons nous aller dans les rues. Nous devons nous aller dans Parce que les Sénégalais ont accès à la plage et au littoral. C'est le premier message sont bi moy les autorités administratives. bi sont les autorités administratives yi nga politique ku fi def lo def yag na ko wax samay discours samay meeting walu suuf ci ku fi def def bu bu Macky Sall di nga dem rendre compte te négociation du am intervention du am kilifa du ci di nga rendre compte parce que lu Sénégal yëpp moom ñetti nit ñeenti nit jël ko lekk ci ay milliards dafa dul yoon dafa war a jeex ci réew mi loolu lañ ci mënoon wax ci lu gàtt di wax nag nii c'est domage gis nga fi mu ne nii ma nga commencé fële fële lañ ko jëlee hôtel yi di ñëw di ñëw lépp jël nañ ko ba fi mu ne nii kenn amatu fi droit kenn mënatu fi def dara donc littoral bi yëpp jël nañ ko ñun dans deux dans dans quelques mënatuñu fi ñëw naan dañ fi entraîné ah lool moo ne li ñu bëggoon waxtaan ak yéen ci lu gàtt la ca des nag Euh, invitation la won bu ñuy lancer Sénégalais pour la pratique du sport xam ngeen ni depuis quelques temps dañoo lancé ñun ay programme bokk na ci programme joxe deret les sportifs là yéen est-ce que joxe ngeen deret. waaw ñun joxe naa deret. ah ñoo joxe kii joxewul. man joxe naa. non joxe woo gannaaw man xam naa ne. man je fais partie de Pastef. waaw mais kañ nga joxe joxe woo. joxe naa deret yaa ngi nii entraîné ba. bu dem joxe ko ñëwaat. bañ ah? koy joxe xam naa ko. waaw gars yi rek joxe quoi. bañ koy joxe xam naa ko. gars yi kii ñu ngi fii centre de transfusion sanguine Fann. ah du ñoom ñooy wër dina seet. mais ñun dañuy déplacé via euh, notre club là qui est aussi Dakar Nakamu. on fait partie d'un club. très bien dañuy euh, bien fan grand yi fan la ñuy ñu war a dañu war a modifier à ce ñoom ñu participer ci loolu. dañu war a joxe très bien kon pratique du sport dafa ànd ak loolu ku wérul munoo joxe deret lii suñu programme yi ñu engagé muy reboisement bi muy dem di nettoyer les plages les les lieux de culte. ak les les cimetières euh vacances agricoles yi nga xamné lancé nañ ko té dès euh, semaine prochaine dinañu def lancement officiel lool yépp dafa and ak wér yaram wér yaram nak bokku na ci likoy koy moy la pratique régulière du sport ñu ngi inviter tous les sénégalais ñu xamni té ñu ga baña gaaw a sénégalais ñaaré surtout suñu mbokk jigéen yi ku ci am 35 ans def ñaari maternité ñett rek japp nga ni légui jeexna Nous nag ñoo war a def sport nous invitons tous les Sénégalais à la pratique régulière du sport du sport comme on dit un un esprit sain dans un corps sain loolu moo mën tabax ab réew. kon loolu mo ne thématique bu gatt bi ñu doon andi di leen wax ni euh, même dans le cadre du parti dinañu lancer beneen concept bo xamné section yépp commune yépp dinañu jël tous les dimanches dajé ci place bi leen gëna a wala ci terrain bu leen gëna a daj jege dajale ñëpp. Je ak un moniteur buy conduire les trucs ñu def une heure deux heures de sport nit ñi doga dem leen parce que depuis des années je euh, suis régulièrement avec ma famille faire sport euh, c'est la pratique du sport mais alors, ce sont les éclairages Ousmane Sonko défend il y a de cela deux ans sur le littoral donne alerte exactement euh, Kepina ki nga xam ni itam yaa ngi fiy tabax jàpp nga ni itam yaa koy yàq ndaxte ñoom suñu ñëwee lépp luy wàllu ko tabax si littoral bi dañ koy dindi euh, mu nekk ay révélation yu euh, am solo yoo xam itam peut-être Ousmane Sonko mi ici si logique allant dans ce sens par le biais du président moom mi nga xam itam le faiseur de roi. En tout cas, euh, à cette décision, pour le moment, ils ont décidé de tout arrêter exactement sur le euh, littoral euh, ginnaaw euh, ñoom euh, décision bi nga xam ni itam ko mu am aussi lenn loo xam ni allant dans ce sens Babacar Fall sur la radio Futur Média, sans que leen ko doon expliquer

te itam ki n'a xam que Modi Ousmane Sonko moo fayal Bopam, ba kër ga day mat euh, d'après toujours ki n'a xam que rek moo euh, hein, euh, information yi nga xam ne itam Mati lu ko daal di recueillir nekk suñu consœur jàpp na ni dernier versement bu Ousmane Sonko mi ngi daté ni ki li que Modi le 21 juin 2016 mom ki nga xam que Modi Ousmane Sonko loolu bataille tey mi ngi ay loxom et que moom ki nga xam que Modi Abdou Aziz Wane nekkoon.